Bienvenue dans cette rétrospective des faits séants ou de l'actualité de la semaine sur Sud FM, scène radio. Une semaine très arrosée par les pluies provoquant des inondations dans plusieurs localités du pays. Le niveau d'eau a fortement augmenté à Keur Massar. Toutes les maisons sont touchées. Le déménagement se fait difficilement. Des pirogues de fortune servent de moyen de locomotion. Face à cette situation, les populations font appel au génie civil car la situation dépasse les sapeurs-pompiers Denisia Sambo. Dramatique la situation actuelle à l'unité 3 des parcelles Assainies. Marcel Mendy et Aléouba, habitants, reviennent sur le décor. Euh, actuellement, la situation est très très critique. Le niveau d'eau n'arrête pas de monter. Euh, les populations sont vraiment déboussolées, désemparées. Et on dit que la situation n'est pas toujours maîtrisée par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Bon, il y a de maisons qui sont abandonnées. Dernier contact, on était à 20, mais actuellement, ça dépasse largement les, les, les, les, centaines. Les maisons de l'île de 3 sont sous l'eau. En ce moment, celui qui est au rez-de-chaussée, il y a personne qui reste maintenant dans cette maison. Comme toute Ici, le déplacement se fait difficilement. Nous avons aussi un problème de déménagement parce qu'à l'heure actuelle, tu ne peux même pas avoir un charretier qui peut faire un déplacement avec tes ballons. Nous avons vu qu'il y a énormément d'eau. Même les gens ne peuvent plus sortir en pataugeant. Soit on est obligé d'emprunter les galeries, comme on dit, c'est-à-dire les bateaux artisanaux. les, les, les petits actuellement. Il y a nos familles qui sont dans les maisons, il y a nos mamans, nos enfants qui sont dans les maisons. Actuellement, on est vraiment, vraiment inquiets. On est vraiment inquiets. Totalement dans le désarroi, les cris de détresse s'élèvent de partout. Si euh, l'ANM incapable de maîtriser la situation, ou bien si euh, les brigades nationales, de, nationales des sapeurs-pompiers incapables de maîtriser la situation, faisons appel aux jeunes militaires. Actuellement, Si ne peut pas régler la solution, faisons des dégâts, on en compte. Une dalle d'une maison au quartier Santiala s'est effondrée à Djid Tcharoy-Kao, occasionnant trois blessés graves. Un autre mur de 15 mètres s'est effondré à Guinaouraï, mais pas de blessés cette fois-ci. La situation des inondations s'est empirée dans beaucoup de quartiers de la banlieue, nous dit Moussa Une dalle qui effondrée euh, sur trois garçons. C'est au niveau du quartier Santiala, c'est dans la commune de Djidé Tiaroïkao, euh, des blessés graves qui ont été même évacués au niveau du poste de santé. Mais vu la gravité donc euh, euh de ces blessures, l'infirmier de poste a jugé nécessaire de les transférer au niveau de l'hôpital de Pékin. Donc, ce qui veut dire un autre également mur de 15 mètres s'est au niveau du quartier Issa Mbeng, c'est à Guinaray. Heureusement, Donc il y a plus de peur que de mal. Aucun blessé n'est signalé donc euh, sur cet état car les enfants avaient déjà senti le mur qui se fissurait et euh, donc ont pris le large avant que le mur quand même euh, n'atteigne un peu le sol. Notons qu'également, mais il faut également signaler que la situation euh, des inondations s'est empirée dans beaucoup de quartiers, de localités également, notamment au niveau du marché de Tiaroy où, le marché est complètement inondé. La route route, les commerçants également, le transport de marchandises euh, à ce niveau. Mais retenez que cette route n'est plus praticable. Donc depuis les fortes précipitations, euh, il faut noter également euh, dans les autres quartiers comme Amdelaï 1, à Biafra, c'est également dans la commune de euh, sur mer c'est la même situation dans la commune voisine, c'est-à-dire à Djamagursikambao, où également les quartiers Nasurula, Medina Fasmbao, la route Mamdiara, et beaucoup donc ont pris beaucoup consentis euh, sur ces lieux non euh, sont restés donc impuissants. En plus bref, à saint les eaux de pluie ont envahi plusieurs maisons. Les quartiers tels que Pikine, Guinaw Rail, Djaminar, Daro et Médina Cour se sont inondés. À Fatick, les bassins sont débordés, des familles délogées par les eaux, la grande mosquée de la commune de Mbalakadio fermée et une maison en banco effondrée dans la commune de Ndiob. Tel est le bilan des pluies torrentielles enregistrées dans cette région. Accident mortel à Kaolack. Le conducteur du camion malien est placé sous mandat de dépôt mardi. Il est poursuivi pour homicide et blessure involontaire. Il sera édifié sur son sort lors de l'audience du 25 à l'accident de la circulation de dimanche passé qui a fait 4 morts et des à tribunal de grande instance de Kaolack Il est placé sous mandat de dépôt et passe sa première nuit à la citadelle du silence. Il est poursuivi pour homicide et blessure involontaire. Son jugement est prévu le 25 août prochain. Audience à l'issue de laquelle ce conducteur de camion gros porteur malien sera édifié sur son sort. Pour rappel, un camion en provenance du Mali est entré en collision dimanche avec un taxi euh, faisant quatre morts et un blessé grave. Le véhicule transports en commun s'est complètement retrouvé sous le gros porteur. Le chauffeur du camion a donc fait trois accidents successifs le même jour, presque aux mêmes heures, sur une même route, occasionnant ainsi quatre morts sur le coup et sept blessés. Les populations très en colère ont improvisé une manifestation qui s'est soldée par le saccage de sept camions maliens avant l'intervention d'éléments de la police euh, nationale. quatre victimes ont été repêchées détachée dans les eaux, trois corps sans vie et une dans un état critique. Elle a été évacuée par les sapeurs-pompiers à l'hôpital de Grandbourg. Les victimes sont de Malicounda, tous des jeunes âgés entre 14 ans et 18 ans. À l'occasion de la fête du Ashura, général d'Etidiane a lancé un message de haute portée et spirituelle et temporelle. Serigne Babacar Sy Mansour a fait plusieurs à se faire vacciner pour se protéger de la que comme il l'a il n'y a pas de solution à l'heure actuelle par rapport à cette pandémie. Il n'y a que de la résilience. Et c'est donc dans cet esprit qu'il a convié la nation sénégalaise à cette résilience, tenant compte des orientations et des recommandations qui ont été données par les hommes de l'art, les hommes de science que sont les médecins. L'une des solutions les plus probantes qui sont entre nos mains est la vaccination. il a fait un appel aux populations pour les inviter à se faire vacciner comme lui-même a eu à le faire et à inciter sa famille à le faire. Puisque c'est la seule solution qui existe aujourd'hui, il invite le peuple sénégalais de taire toutes les spéculations concernant cette vaccination, parce que la vaccination n'est pas la solution finale, mais elle nous permet de ne pas tomber dans euh, la fatalité d'une aggravation de la maladie lorsqu'on en est touché.

départ est table sur 10 millions de francs CFA. Après avoir reçu les différents avis, le ministre de l'Intérieur va arrêter dans les prochains jours le montant qui sera déposé à la caisse de dépôt et de consignation au plus tard 150 jours avant le scrutin. Ça n'est tout, chers auditeurs, pour ce rappel des faits qui ont marqué l'actualité de la semaine sur Sud FM Scène Radio. Merci de l'avoir suivi. dal leen ak jàmm mbokk yi ci xibaar yu gën a fës benn ci ay bés fii ci Sud FM seen rajo. benn ci ay bés yi nag tooy na xepp ndax yi taw yu bëri ba tax na nag euh, bërëb yu bëri daal di taa ci dëkk bi lu ci mel ni Kër Massar ndox mi dafa yokk ci kër yi ngir génn foofu tamit nekk na lu métti ndax ndox bu bëri ba tax na askan waa di woo waa sibir ñu dimbali leen ci ndax sapeur pompier mënuñu ci dara Denisia Samb. mbir mu jéggi dayo situation bi am jamono ci unité 3 Parcelles Assainies Marcel Mendy ak Aliou Ba di dellusi ci décor bi. ndox mi lépp lépp lépp lépp lépp lu mu war a jël. nekk nii askan wi yeewoo Unité 3 ñu dund ay jafe-jafe yu metti li xewoon daaw daanaka mu wax taw leen rek amoon na ay vingt maisons yu génn mais boo xoolee mën na trente maisons yoo xam ne seen borom abaan nañ ko daal dinañ dem te génn bi ci ay conditions yu difficile la ñuy génnee bu ñuy génn dañuy xuus obligé da ngay génn man sax ba muy génn ndox daf may pince bu baax a baax bon ñu yaakaaroon ni docaat sax dina fi ñëw mën a génnee askan wi mais nit ñi dañuy obligé bi mi ngi mi ngi mi ngi continuer di yokk nag dem dikk bi jafe na fi loolu. boo demoon tey jii diggante gi saret pour mën a jël say bagage génnee ko doo ko sax am parce que yoon moo moo amul ci diggante boobu. déménagement bi dafa métti métti métti métti ba nga xamante ne. ni daanu euh, lootoo ñi nga xam ni ñoom saret am na niveau mën na faa dugg saret dafay dugg leen génnee. mais fu nekk ñi am na niveau boo xam ne parfum quoi du ko tax ba ko dugg ndox da koy mëdd dañuy obligé defal ay gaalu looco jël ay bidon teg ci ay sagar defal ko ay gaal pour mën a vraiment progresser si biir ndox mi noonu la ñuy génnee fu nekk nii askan wi jaaxle loolu waral woote wàllu yi di bàyyi ko fu ne dimanche ba léegi amul benn solution boo xam ne teg nañ ko boo xam ne jule na mën la vingt quatre heures amul dañuy def benn solution trois heures temps après ñëw yi baaxul xaaral am beneen dimanche ba léegi kon totalement nekk brigade nationale des sapeurs pompiers wax dëgg am na effort yoo xam ñu ngi koy consentir mais jumtukaay def na réseau bi exécutoire bi fi ndox di jaar dafa bouché mënul dem loolu yëpp ay jafe-jafe la ñun nag appel bi ñuy lancé mooy bu fekkee ñoom wax dëgg yàlla seen ay pexe dafa jeex ADM bi nga xam ni moo waroon def lii defu ko donc ñu ngi def appel aux génie militaire pour ñu ñëw génne ñu fi jafe-jafe te bu ñu ñëwee lii dina dañ. ay yàqu-yàqu am tamit ci taw bi métti bi am ci guddib àjjuma ba tax na ab dal moo daal di daanu ca quartier sant yàlla ci Jidde Caaroy kaw ñetti nit am ci ay gaañu gaañu yu métti beneen mur nag bu fukk ak juróomi mètre daal di daanu ca ginnaaw raay waaye foofu amul kenn ko ca gaañu mbënd bi daal di gën a yokk foofee ca banlieue bi ñu ànd ceeg Moussa Thiam. benn dal moo daanu ci ay gone ñett lañu nag dóor yi nag foofee mu ngi xewee ci quartier sant yàlla sànq rek ci commune Caaroy kaw mu doon nag ñett blessé grave yoo xam raay foofee nag daanaka daal euh, kenn gaañu fa ndax nag euh, booy miir bi di xar daal ci la xale yi daal koy séen daal di nag euh, daal di tax nag ñu si sant bu baax waaye nag lu ñu jàpp rek mooy daal luy bëri la di am ci banlieue bi ndaxte nag gis nañ ni daal kër yi nga xam ne daanaka daal dañoo xaw màgget lool loolee euh, danger lu bëri ci ñi nga ne ñoo tee nekk léeg sax naam nekkee ay sommation li nga xam ne moo di protection civile dafay ñëw waaye teewut ñooñee pour dem feneen nag day jafe ci ñoom ndaxte nag amuñu beneen bërëb yoo xam ni yu wutu kër yi nga xam ne pour mën dem fa euh, nekk ci jàmm lu ñu si mënti wax rek mooy daal li jëm tamit ci wàllu euh, ndox mi daal situation bi gën naa jéggi tayoo ndaxte nag daanaka daal quartier yu bëri yi nga xam ne ñoo ngi fii ci banlieue bi ndaxte fële sax dèjà ca marché Thiaroye depuis démb ba léegi li nga xam ne moo di njaay mi daal daanaka amu fa ndaxte nag marché bi daa fees dell ki ndox Euh, rawatina nag li nga xam ne moo di tali 103 bi nga xam ni foofee nag daanaka oto yi yóbbu marchandise yëpp fa la jaar euh, foofee nag daanaka daal ndox mi euh, sax Daaru Rahman foofee mu doon quartier yoo xam ne daanaka daal ndox mi naam sax bu nekkoon moo ngi doon wàññeeku ndax pompe waaye daal dafa gën a yokkuwaat ndax taw yi nga ca Ndar tamit ndoxu taw yi daal di dugg ci kër yu bëri yu ci mel ni ay Pikine ginnaaw raay Jaminaar Daaru ak Médina Course ca Fatick moom bassin yi ñoo débordé ay njaboot ñu jëlee leen seen kër grande mosquée sax dafa tëj ci aljuma ji ab kër goo xamante ni banque lañ ko defaree daal di daanu ca commune bu Ndiob loole lañu mën a jàpp ah, ci taw yi métti yi nga xamante ne diwaanu Fatick daal dina koy am. dimanche bi ñu génn accident bu métti am ca Kaolack dawalkatu camion di ab malien moom nag daal nañ koy def mandat de talaata ñu ngi ko toppee homicide ak blessure involontaire loo xamante ne tayu ko dina xam nag fu muy mujj ci audience bi nga xamante ne dina am ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août bi ñu dëgmal Mamadou Camara. ginnaaw ba nga xamee ne def na accident circulation dimanche bi weesu ci booru cœur de ville bu Kaolack ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan mu am ñu ci jëlee ay gaañu gaañu talaata ji ki doon dawal kamion gros porteur malien bi moom àttekat bi déglu na ko ci tribunal de première instance bu Kaolack moom nag talaata ji sax la def guddeem gu njëkk ci kaso bi mooy homicide ak blessure involontaire dinañ ko àtte nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août bii di ñëw muy bés bi nga xam ne moom chauffeur camion gros porteur boobu dina xam fu mu féete Kaolack Mamadou Camara Sud FM. ci pàttali camion boobu nag jógee Mali dafa rek daal di tasanteeg taxi bi daal di yëg ci kawam ñeenti nit daal di si ñàkk seen bakkan ci saa si ak kenn koo xamante ni am na ci gaañu gaañu yu métti boobu sax daal di def ñetti ans ci même bés boobile daanaka ci même waxtu yi te ci même yoon ñeenti nit ñàkk seen bakkan juróom-ñaar am ci ay gaañu gaañu ba tax na askan wa nag meroon ba futtu daal di génn manifester yàq juróom-ñaari camion malien laata rekk waa polis di ñëw. ca Saly Portudal am ay xale yu fa rekk daa di eh, lapp ñeent lañu daal di génnee ca ndox ma waaye ñett ñi ñoo ci ñàkk seen bakkan kenn ki mu ngi ci diggante dund ak dee sapeur pompier daal nañ ko yóbbu ci hôpital Grand-Bourg xale yooyu nag ñàkk seen bakkan ñu ngi amoon eh, fukk ak ñaar jàpp fukk ak juróom-ñetti at. ci feetu pa Achoura bi xalifa général des Tidianes daal dinay ay génn joxe bataaxal waaye tamit ay digtal Serigne Babacar si Mansour daal di wax askan wi ñu génn dem ñàkku ji ngir rek aar seen bopp ci Covid 19 Serigne si Sy Mansour dañ koy teewlu. man de li di sama xalaat. moo di bu ñu nee ñàkk nañu ñëpp ñàkku ji. parce que mbirum yàlla léegi li ci des. yàlla mënul lu dul fàkkal la. yaay seet noo ci daanoo ki mu la war a fàkkal fàkkal na rek. nañu dem ñàkku ji te bàyyi weddi bi fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun li nga xam ni daf la dal te xamuloo noo ciy def kala ci tane ci xam-xam demal jox ko sa bopp wala nga laaj ko docteur yee xam ñoo amee docteur ñoo amee ñàkk yi na nit ñi ñàkku ji te toog xaar yàlla waxal ni yàlla maa ngoog fu ma nekk xam nga ko li ma bëgg xam nga ko li ma ñàkk xam nga ko bu la neexee loo ma bëgg a defal xam nga foo may fekk yàlla fekk dafa ko neex la xéewal te ñu wàññi wax ju ñaaw ci télévision yi plateau yi wàññi weddente bi bu ñu ko mënulee bàyyi nañ ko nañ ko wàññi docteur yi nga xam ni ñoo nekk malade yi di sonn guddeeg bëccëg nit ñi di leen daw ñoom ñu di leen ñooxu pour faj leen ñuy ñaan yàlla yal na leen yàlla musal te ku ñu tiim yal na nga wér ñi ci dee yàlla na leen yàlla jéggal yërëm leen. ñu jeexalee élection locale 2022 yi euh, ministre de l' intérieur daal di nay jot nag xalaatu ak ñi yëngu ci wàllu politique ci euh, caution bu ñu war a euh, majorité bi daal di wax ne 40 millions de francs CFA lay proposé ñi di opposition bi nag ne loolu jaarul yoon tey proposé fukki million si suñu koppar gannaaw nag ba ministre bi jotee ñaari xalaat yooyu la dina rek wax ci bés yi ñu dëkk mal ñaata la parti politique yi war a ngir. ngir rek bokk ci joŋante yi téeméer ak juróom fukki fan nag la am laata ñuy amal élection locale yi.